ji waaye sax laa lay teree ci seet bu mbéyam la sa yaay tudd soxna Thiam la yaayam tudd ummi ma maam Cheikh la sa baay tudd Fatou mi sa ndey sa baay yi ñëw bokk ndey baay lii la yàlla dogal. yaay Maguette Ndiaye Baye lu lay tere toog ci seesu buur seesu buur yaay borom su la bàkkalee seesu buur ku ko nga bañ yaa moom seesu buur Baye Sam meer na sa yaay tudd ñu dénk ko magam nga judd judd nu war a ni nga juddoo réew mi ku fi juddoo amul. ci sama nii toog yaay la bàjjen na waaye ndànk see ngi nii toog yaay la bàjjen na yow nekk xeet yi doo ñoom te duma yow bu yàgg ba ngay ñoom ni nga juddoo la ummi maw jimbi caam mbay waa ngi noonu yegg si na sa yaay ngoo koy a juddu njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tekki dara sama jàmm de si waatal jamono doo sensé ni nga toogee mati waaye nag ma Isa nga xam ne laa war a def saa jooy ndax sama day nekk sama ndey ja maa ngi koy ñaanal yàlla na gusul aw fan Serigne Saliou boo ñaamee ku fi rafet nday kase moo ngi ñëw di ma yaay la bàjjen la